man lu ne def naa ko daaxul nga ma ne ndaw si bëgg naa la warul tax yow nga ma dawloo ma laa nopp daw ma doon doon la ñëw moo fi nekk xoolal. gis mooy tubaab bu noonu ah. yàlla mooy la yow fu ñu rey wa. planqué leen yow ci ci biir amul ay leen planqué wu leen glace am na. ok waaw. glace. glace laay jënd. booy glace glace amul fi. aywa. Ah! jur gi jàpp. sama bos bi la. may na teg. sama bos waaw. arrêté jéggi jéggi jagaw leen neex maa ngi laaj dañu de yéen bu ayca ayca ayca la la parle ma parle ma parle ma lépp ak yow. lépp yow mii yaa ñu ko dugg. waaw lépp yow mii la. yaa dàq puus puus. waaw pare nag ni gos bi du fen ndeke fen kat ngeen ma yëpp. ah, ah. ah. ah. ñu la dëgg ñu wax. fii nga fen ni dañoo am ay gel. yaa ko wax dañoo am ay gel. ah yow moo ko wax sa message. mais lee mujj. jàppuñu sa message. waaw wala la. ba de yow mi dàq booy bi nag ni du fen ndeke fen kat bu rëy la. alors foogawuma kon. waaw yow. booy boobu moom mooy fan lañ koy waxee. waaye yéen xanaa ñun kër yi moo amatuñ suñuy kër. doy na war doy na war. ah bilaay bis du ñàkk. Ah. tey de ñëpp a wodd. dëgg <laughs> dafa fekk ni ah, la lu la bett rek mën la. ku fi wodd yoo xam na ko. sëri léegi ñeent la. <laughs> waaw. waa léegi léegi. sëri waa léegi ñun fu ñu jëm. ah xanu ah, jëm yàqu nanu. fu jëm na xalaatati rek. ah kun na noonu. lu ci pexe. wax nanu c'est fini xanaa du ñu génn suñu kër yi boobu suñuy bagage ñuy génn suñu kër yi comme ça xamuñu fu ñu nan ah, dëkk fi ñuy ah, répété fii place répété kaay la fii xam nga du fi fanaan li ñuy def ah, alors oh. am naa solution am nga solution amatul la am naa solution naan amatul am nga solution nañ leen dem Dakar Ndakaaru Njaay toj fa waaw wax na dëgg fa la imposé fa suñu bopp moom fa jeex na dëgg fa la aar ba doxee jeex na li ñuy def aar Ndakaaru soxla nañ <laughs> billaay yow doon nit gay ku yàgg ñu fay gay dañ lay gay si la nga Ndakaaru ndeysaan xam nga ni na ilaa Dakar waaw waaw mooy dëkk na ah. Dakar mi yaay